Euh, julli ci yàlla bi euh, sante yàlla jullit ci prophète Mohammed paix et salut ñu ngi kontaan bu baax a baax lim ñu mayee ren itam ak comme niñ ko naan defee at yi passé ñu ñëw daje si ak euh, ci balaa gàmmu gee jot ñu waxtaan si daje si ziyaare sàkku ñaan ñaanal la famille si bi nga xam ne ñoo nekk ci Tivaouane jaarale ko ci sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne dañuy am kontaan toujours di waxtaan ak moom parce que dafa yàgg ci wàllu politique xam nga loolu comme ni ma ko doon waxee léegi moom moo doonoon daanaka secrétaire bu waajuram kon xam na bu baax histoire politique bu Sénégal ci waxtaan ak moom dañ ciy jëlee xam-xam toujours parce que jaar-jaaram tax na mu mun ñoo wax li nga xam ne euh, mooy njëriñ la ci ñun ci wàllu politique. di wax ne di ko présenter si loolu mooy yoon wi présenter sàkku ñaan pour haut conseil de collectivité territoriales présenter ko bureau bi ba pare rafetlu li nga xam ne ci bureau bi dugal nañ ci euh, ñi nga xam ne ay doomi soxna lañ jóge ci këri diine yi je crois que moom itam mu rafetlu loolu bu baax ndax Sénégal ba mu doonee Sénégal ba tey lu gouvernement di def daf ci boole këri diine yi te jàmm rek la ci gis bi ñu demee ci léegi ci sëñ Mbaye Sy Mansour foofu sëriñ Aliou Dia moo fa yoon kàddu wax fa bu rafet biñ ñëwee fii aussi ci euh, El Hadj sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin euh, Seydina Thiawlaay moo jël kàddu wax ju rafet jëmale ko ci sëriñ bi jëmale ko ci ni Sénégal di di doxale kon loolu moo doonoon euh, li ñu bëggoon a def pour présenter ko sëriñ bi sàkku ci ci moom ñaan moom itam ñaanal ko mu yàgg fii yàgg boo xam ne dafay dafay ànd ak wër donc euh, tànk yooyu ñu dox mooy tànk yi nga xam ne moom lañ fi fekk ci wàllu relation bi war a am ak euh, institution yi ak famille religieuse yi te kii comme institution bu bees la soxla nañ euh, conseil am soxla nañ recommandation soxla nañ ay ñaanam pour que li nga xam ne moom lañ yéene réew mi te Macky Sall jox teg ko ci suñu loxo ñu di ci gërëm bu baax a baax baax ci suma tur ak ci turi bureau bi ak tutri membre yëpp loolu la ñu ñëwoon waxtaan ci ak. Euh, euh, waaw loolu effectivement loolu je crois rafetlu naa ko parce que gis naa ne euh, ci programme bi nga xam ne sax ñun moom la ñu amoon amoon nañ un programme de modernisation d'équipement et d'aménagement des cités religieuses kon nag suñ gisee Macky di ko def. dañ ciy kontaan bu baax di ko ci encouragé mu xam ne ñun ñëpp la ko defal di ko ñaanal loolu nga xam ne mu ngi koy defal famille religieuse yi euh, yàlla may ko ci ndam waaw te ci wàllu googu ak ci wàllu yëpp ñu ngi taxaw ci wetam di ko di ko jàppale ba nga xam ne fi mu bëgg yóbbu Sénégal mu yóbbu fa Sénégal jërëjëf merci.